présente au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, actuellement en réunion au Conseil des ministres. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances attristées à sa famille, ses proches et à toute la nation. Je remercie et félicite également le personnel de santé qui n'a ménagé aucun effort dans la prise en charge de notre regretté compatriote. En ce qui concerne la situation de ce mercredi 1er 2020, les résultats des examens virologiques réalisés sont les suivants. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de un cas importé 14 cas contacts suivis par nos services. Ces patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront d'hôpital dans les prochaines heures. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Le second cas grave annoncé lors de notre communication du 30 mars 2020 a été évacué hier soir vers son pays d'origine à à ce jour donc, 190 cas ont été déclarés positifs, dont 45 guéris et 145 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la population au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives demb mardi fanweri fan ak kiweru ci mars 2020 ci fuk ak juróom ñeenti waxtu yu tegal fuk ak ñetti simili Sénégal amna na décès bu njëkkam ci Covid-19 mu doon monsieur Mababa Diouf ñu gën ko xam ci turu Pape Diouf mangi koy ci monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale mu nek ci réunion conseil des ministres président de la république son excellence Macky Sall gouvernement bi ak askanu Sénégal yépp mangi koy jaale mbokam yi ak xaritam yi mangi di personnel de santé bi yépp ci taxawayam ci suñu mbokk mi nga xamné mo ci bésu tey bi mercredi 1er avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat examen virologique yi may waaj lim ci témèr ak juróom ñen fuk ak juróom test yi ñu def fuk ak juróom ñoo ci positif manam ben cas importé muy ñu joggé bitim réew dugg suñu réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi juróom ñaari ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye ñaareelu cas bu grave bi nga xam ne wax nañ ko keroog ci le 30 mars 2020 éva évacué nañ ko démb ci demandu famille ci bésu tey bi dale ko ci kaab bi ñu njëkk am Sénégal woññi na téeméer ak juróom wër nañu ci mu des téeméer ak juróom ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoonte ak digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant